jógee musdalifa dem minan yëngal daabaam ngi bu yeggee ci bat mu xasar fa yàlla lay goon abrahatu ak ñooñam bu yeggee minan bu mu changé ni mu waree woon daaba gi sax mu ko changé direct lay def jëmm am ra jëmm aqaba aqaba daaba gi ni ko waree woon sax mu ko changé ramaana sànni jamrata aqaba jamra aqaba dafa am ñetti jamra yi fa nekk ba mujj ba mooy aqaba bu yegg minan rek moom lay jëmali sànni bi sabi alxasayaatin ci juróom-ñaari xeer la xasal xas fi comme xeeru sànni mooy xeer yi nga xam ne moo ngoo teg sa baaraam ni sànni loolu mooy xasf xam nga te xeer yi ngay teg sa baaraamu ndey rek wiccax mu dem xam nga loolu xeeru mag mënoo koo def kon xeeru ndaw woo xam ne mën nga koo wiccax sa càpp sa baaraamu ndey loolu mooy xasal xaf si comme xeeru sànni dégg nga yu mel noonu moom ngay sànnee moom ngay sànnee jamra yaa may dégg hmm? wayu kabiru na kabaar maa kulli xasaatin ànd ak bépp xeer na kabaar ànd ak bépp xeer maanaam saa yoo sànnee rek da ngay kabaar jamra yi nag ci bis bii bis mooy bis tabaski bi moo tax bis tabaski si ko jamra xabar ngay sànni jamra ñetti jamra la waaye bis bii jamra xabar ngay sànni xeer yi nag juróom-ñaar lay doon bu manqué rek mu ngi mel ni sànni woo da ngay rey gàtt jangee ko na nga sànni juróom-ñaari xeer su ma yéen xaru topp mu loj in kaan dam nekk na maa wànd moom xadiyun xadiyu su sànnee ba pare dafay rey xadiyoom xadiyu gi fan la koy reyee bu dee la ko jëndee woon maanaam xadiyu gi taxaw na arafa taxaw na arafa ni ki mu jëndee ko xam nga boo ko fa jëndee rek taxaw na fa moo tax dem ba arafa nga jëndee fa xadiyu mooy gën a noppale bu dee jëndee na ko arafa taxawal ko arafa hadiyu gi minan la koy reye bu dee jëndeewu ko arafa di leen minan la ko jëndee wala makka hadiyu gi makka la koy reye sopp nañu mu reyee ko marwa fu ñu ko reyee rek si makka dana ba waaye nag hadiyu googu bëgg nañ mu génne ko yóbbu ko ba sa xilli ga xilli fii Sénégal mooy baali baali yee bu fekkoon am na kii waaw na yóbbu hadiyu gi ba si xilli ga mu yóbbuwaat ko makka door ko faa rey parce que hadiyu dañoo bëgg mu boole diggante xel ak xurum arafa nag si xilli ji tax boo ko jëndee arafa rek taxaw ci xilli ji boo ñëwee rek da bu dul loolu nga yóbbu ko ci xilli ja reye ko dafay dugalaa ko màkk reye ko dégg su ma yéen xarum mu laj xat yéegi iñ kaan nekk ne maa wànd moom xat yu xat yu su ma mu door wattu lii ci bisu tabaski moo tax ñu ne waa ca minan duñu tabaski xat yu lañ a rey suñu seen xat yu ba pare su ma yaati mu dikkee albayta kaaba ga su ko defee nga dem màkk xam nga mu ngi fii minan la lii yëpp minan la koy defee su watoo ba pare mu dem màkk dem ca kaaba ga fa fa firi mu bëbbal maanaam mu wër wër ak ifaada gi wër gi juróom-ñaari yoon la koy def wër gi mooy farata gi yaa xam mu la hmm. waaye tuuf mu wët saban juróom-ñaari wët weer kama mu rukon mu julli ñaari rakk ci mag gannaaw maqam Ibrahima waaye ñaari rakk yi fu mu ko jullee si jàkk ji baax na waaye jullee ko ci gannaaw maqam ibrahim lañ ko sopp mais ñaari rak yi moom waru gar la bu ko baye dana ko rey gatt jangee ko su muy mu sax bi meneen ci meneen salatu ayaam ñetti fan su demee màkk bisu tabaski bi ci misaal bu doon tabaski bi àllarba la dem na màkk bu wër kaaba ga gannaaw bu mu lojee ba wattu sànni na jëm na àq ba loji wattu dem màkk war kaaba ga bu xasee sànni jëm na ba ne xeewee ko ne xeewee ko bu ndaw yére yu ñëw yu ñu ko soloon yëpp may nañ ko bu neexee buy dem màkk mu solu sanc ba mu baax sol yére yu wër cëram takk montaram ndax yooyu yëpp aayatuñ ko dañ ko aaye daal mooy euh, euh, jigéen ak parfum ak ak ak rëbb dégg nga waaye leneen yëpp may ko mën naa dem sol lu ko neex kaaba su wëree kaaba ga nag bu doon tabaski bi dafay ñibbisi bu ñibbisee mi hmm, euh, dana fa fanaan dana fa sax ñetti fan ñaari fan yi mooy waru gar fa fanaan xëy alxames sànni jamra bi uulaa bu njëkk bi ak wusta bu diggu doom bi ak àq mujj bi da ko war a njëkk toppalante nag bu sànnee wusta bu diggu doom bi Eh, door a sànni uula bu sànnee uula foo mu sànniwaat jamra bu ñaareel bu diggu doomu bi uula bu njëkk bi bu fekkoon dafa njëkk sànni jamra àqaba door a sànni bu diggu doomu gi dafa sànni bu njëkk bi sànni àqaba door a sànni bu diggu doomu bu njëkk moom baax na waaye àqaba bi moom baaxul bu sànnee bu diggu mu bu pare foo mu sànniwaat àqaba ndax jamra yi dañ leen a war a toppalante bu leen toppalante comme sànniwul leen xeer yi dafa war a mat bu doon jamono bu njëkk bi dafa sànni juróomi xeer fàtt fa ñaari xeer sànni bu ñaareel ba bu ñetteel soo boobaa dana utaal ñaari xeer mottali bu njëkk bi su mottalee bu njëkk bi dana war a sànniwaat bu ñaareel bi juróom-ñaari xeer sànniwaat bu ñetteel bi juróom-ñaari xeer parce que xeer daa war a mat te jamono dañoo war a toppalante yaa ngi xam mu wax kon su bisu tabaski bu doon àllarba dana ñëw fanaan fa alxames mu sànni jëm fanaan ngoo dafa war dafay warit mu fanaanaat fa alxames fanaan fa guddi gi yëpp bu dee alxames gi dafa génn minaan xaar ba xaaju guddi mu door a ñëw dana lay gàtt jege kooku moom fanaan fa bu génnee na teel a ñëw fanaan fa ñaareelu guddi muy alxames xëy àjjuma sànni ñetti jamra yëpp comme noonu ma ko nag bu sànnee jamra bu ko neexee mu ñibbi ci gi yoru mu fay xaar samedi jant bi so bu fa ba jant bi so nag mu fanaan fa xëy samedi sànni ñetti jamra yi door dem. bu ko neexee mu fanaan fa même bu dara xewul fanaan fa xëy samedi sànni ñetti jëm lay door a dem loolu leen Alxuraan wax ne ku gaawee sànni ñaari fan yi rek muy bu dee tabaski talaata la nga sànni alxames ak kii kon àllarba la nga rek dem ñibbi Alxuraan ne dara nekku si fala ismaali bu mën taaxara ku yéexee ba samedi mu sànni fala ismaali yi tamit amul bàkkaar yëpp baax na yaa xam ne mu la wax dégg léegi nag bu fanaanee minan ñetti fan yooyu fesa sala saa yu jengee asam su jant bi balaa muy julli tisbaar bu tusubaar jotee balaa mu julli tusubaar na jàpp jàppul na dañ ko sopp rek mu laab sànni jëm la moo tax fa saala nam jeng na asam jant mooy but tusubaar jotee te jullee guut min ko yémin ci bis bu nekk min ha ci ñetti fan yooyu ramaa na sànni al jamra te jamra alti yi nga xam ni tali dana ménga minan minan bi sabay xasayaati ci juróom-ñaari xeer su ko defee ne wut juróom-ñaari xeer mu sànni ca jamra ya yaa nga xam ma la wax yu kabiru nakabaar maa kulli xasaati ànd ak xeer wu nekk xeer wu nekk bu ko sànni day wax allahu akbar bu sànnee jamra bu njëkk bi ba juróom-ñaari xeer yi jeex na dem taxaw ci kanam jamra gi nga xam ne jamra baa ngi gannaaw lu yàgg lu ni lu mën a jàng sootu bàqara jàng mu gaaw jublu xibla di ñaan yàlla di ñaan yàlla ba mu jeex loolu lay marché doon na nga taxaw tawiran lu gudd eh, ci isral awwalin yi ci gannaaw ñaari njëkk yi di ñaan dégg waaye da ci kanam jamra ba nga taxaw foofu di ñaan yàlla jublu xibla dégg hmm? su meer mi musaane aljamra te ne ñaari jamra muy bu digg doon bi ak mujj bi kula jamratin bépp jamra bi misli zalika comme noonu maanaam juróom-ñaari xeer way kabiru naka baar maa kulli xasaatin ànd ak bépp xeer xeer wu mu sànni rek dafay wax allahu akbar way xëfu na taxaw li duwaay ngir ñaan bi isri ram yi ci gannaaw sànni fil jamrati ula si jamra bu njëkk bi wa sànni ak bu ñaareel bi bu njëkk bu sànnee taxaw ci kanam jamra bi ñaan yàlla jamra bu ñaareel bu sànnee na taxaw ci bi ñaan yàlla walaa yaqif du taxaw xen da jamratin ba si jamra aqaba jamra aqaba mooy mujj bi bu sànnee ba du fa taxaw dafay sànni ba pare rek daal di tourné ndax foofu dafay xat moo tax mu leen na tourné yaa nag moom boo xoolee toppalante na la aj xaw ma yaa ngi li nga war a def ak ci topp li topp yëpp mu la koy wax. Fesarama nem sànni na fi yow bisu ñetteel ba boobu te moom raay bi mooy yow mi naxari moo ñeenteelu bisu tabaski ba ci misaal bu doon tabaski àllarba la alxames ajjuma samedi mooy bisu ñetteel ba waaye boo ci boolee àllarba samedi mooy bisu ñeenteel ba. alxames ajuma samedi mooy bisu ñetteel ba samedi gu ne wax naa ne bu la neexee nga fanaan fu mu neex doo fanaan waaye bu la fa jant bi sooyee foofu da nga léegi bisu ñetteel ba mooy tombeek ñeenteel bisu tabaski bi bu sànnee insarafa na tourné ilaa Makka jëm Makka waxatam mën na xaj waajam wéncha bu ko neexee temps jëla mu gaawee fi yomee ñaari bis yi mi ayaami minan ci fari minan mu sànni wan sarafatam tourné bu ko neexee bu dee tabaski bi àllarba mu sànni alxames ajuma te tourné jëru mu fay fanaan dem mag pare na danaa wër wër tàggatoo gi rek kaaba gi boo koy boo koy bàyyi war nga koo tàggu booy wër nga wër ko tàggu ko ndeysaan tàggatoo googu ne war naa doo yaram fi saa xaraja ni mu génn min màkk te jugee màkk taafa na wër li war daa ngi tàggatoo bu bëggee génn màkk nga wër kaaba gi tàggu ko soo mënee jooy jooyal ndax yaa ngi tàggu soppi bu baax war a kaa mu juri ñaar rakk ci maqaam Ibrahima wan sarafa mu daal di mu daal di tourné loolu mooy mbiru aj wala umratu umra yefal dana def fiyaa ci moom kama zakar naa comme nuñ ko tuddee woon umra nag jàngoon nañ ne sunna la benn yoon ci dund bi moom umra du farata sunna la benn yoon ci dund bi waaye yeneen yoon yépp luñ sopp la nañ waxe woon xaj ci ci xarmaal ak yëpp noonu ngay defee umra awalan ci commencement ba commencé kana comme nuñ ko tuddoon awalan ci commencement ba ila tamaami sa'i ba mat ak dox benn safa diggante safa wal marwa ak marwa soo demee ba dox safa ak marwa ba pare su ko defee umra ga jeex na dégg nga su ma yaxliqu topp mu wat raasoo boxam waxat tamata fekk mat na umratoo umram ga boo doxee sa bambara ba pare waral sa bopp rek umra gi jeex loolu mooy umra amul problème moom amul arafa amul ay jamra amul wër ak ifaada amul dara wër ak xuddoom gi mooy farata ga booy dugg màkk war googu ngay wër mooy farata gi ci umra waaye aj moom war googu du war war waxoon naa waa màkk warul leen mais ñu jógee ci gox yi ñëw ñooñu la war wala ilaa quwatu afdalu moo gën fil xaj ci xaj wala umra teg umra booy xaj wala ngay umra bu dee góor nga nga watu moo gën nga wàññi sa karaw waaye wa taksiru jemp mooy wàññi karaw yu ci dana doy booy wàññi karaw dana koy dagg ba karaw gi waaj jeex comme kuy watu di wàññi rek hmm. bu dee góor bu wàññee dana baax waaye nag mu watu moo gën moo xam dafay xaj wala muy umra wa taksiru buy jemp di wàññi karaw min jamee chaar yi dafay dagg ci mboolem karaw gi moom góor waaye sunatul sunnatul marati sunnaay jigéen a taksiru mooy jemp jigéen moom wat karaw gi warut ko jemp moo daggan ci moom buy jemp it du wàññi karaw gi ba mu sës dafay xool lu toll ni polu baaraam baaraam xam nga am na ñetti rëdd rëdd diggante rëdd rëdd ak morom ku ne pol la polu boppam cat baaraam ba weewa ba ci bu njëkk bi loolu benn pol la beneen rëdd rëdd bi ñaari pol la beneen rëdd rëdd ba pol la yaa jigéen lu toll ni polu baaraam lay dagg waaye watu daganu ci moom di la fukki at la amaa xale bu jigéen bu ndaw a ndaw ndaw moom kilifaam mën na ko wat waaye jigéen ju mag watu dafa xaraam ci moom ndax loolu da koy ñaawal da koy métital xanaa boobu am ay góom wala gaañ-gaañ boo xam ne mënu ñàkk watu su boobaa tax mu watu waaye jigéen ju mag watu xaraam na ci moom jigéen ju ndaw moo war a watu kon jigéen dafay jemp bu demee mag waaye du du watu yaa ngi dégg mu lool wa taaxus dana jigéen dana jàpp almaraatu jigéen min atrafi shaariha ci cat karaw gi xadaral un an murati comme polu baaraam min jami ci mboolem karaw gi karaw gi lépp lu nekk kon polu baaraam la ci dagg waaye du dagg lépp hmm? min jami moo xam karaw gu gudd gudd la wa qasiri gàtt même bu karaw gi guddee lu toll ni polu baaraam la ci dagg karaw gi bu gàttee lu toll ni polu ci dagg góor nag dana dagg min qurbi aslihi ca jege ca saxwaayu bopp ba dégg nga góor dafay dagg ba mm, ci cat kii bopp ba dégg hmm? jege saxwaayu bopp ba góor foofu lay dagg léegi eh, ñu résumé li nga xam ni moom lañu defee aj parce que li mu pare woon li mu waroon jàngale ci wàll aj jeex na eh, lii moo ci des yi ñu aaye ci aj geeg yooyu dégg kon kuy aj li muy njëkk def mooy dafay dafay set set mooy lan mu wat karawu poqtaan karawu naq karawu mm, jemp mustaas dagg ay weyam hmm? su ko defee mu daal di sangu su sangoo ba pare mu changé ay yéreem teraxlaay ak làmbaay su ko defee nag ci lay door yéene ne fas naa yéene aj dégg nga mm, ajal yàlla joxe farata gi bu dee omra la mu yéene ko dégg nga bu dee xiraan la dafa yéene omra bu pare teg si aj dégg nga xiraan mooy loolu dégg nga irdaaf mooy mu yéene omra rek avant muy aj mu avant muy euh, wër kaaba ga ba pare mu far si tegaat aj loolu xiraan la rek ñoom ñaar moom boo leen boolee jëfe aj gi dafay yóbbaale omra ga dégg su yéenee lam yéene ba pare fekk son changé na yéenam day commencé di wax labbayka allahumma labbayka labbayka laa sharika laka labbayka inna alhamda wa ni'mata laka wal mulka laa sharika lak ay yàlla lañ ko wax waay dégg ñoonu lañu yàlla wërsëgal aju màkk dégg su ko defee noonu lay def jëmali màkk nag bu demee bay waaji xegg màkka bëgg nañ mu sangu dégg nga su sangoo nag door a dugg màkk buy dugg bëgg nañ mu duggee kadaaw saniya mu ci kaw màkk buy génn màkk géddee génnee bunt gu ñuy wax kudan su duggee màkk nag ci lay door a war a bàyyi wax la bayka gi dem sa jàkk ja ci masjidul bu fay dugg na duggee baabu bani sheyba buy génn ca jàkka ja euh, na génnee baabu bani sahm loolu waxoon nañ ko dégg su ko defee bu duggee ci jàkka ja li muy njëkk a def mooy dem fóon xajul aswad ci gémmiñam fóot googu sunna la su ko mënul fóon ci gémmiñam bu ko fóon nag bu mu am kàddu bu mu def bu mu mucc bu mu am kàddu da koy fóon noonu rek ci gémmiñam bu ko mënul mu laal ci loxoom teg ci gémmiñam mënul loolu mu jël bant laal teg ci gémmiñam bu moom loolu mu junj fóon gi rek wax allahu akbar waaye saa yu fóonee dana wax allahu akbar dégg ah su ko defee nag su fóonee xajur aswad dafay taxaw ba romb xajur aswad tuuti door a commencé wër li ñuy bañ mooy mu tollook digg xajur aswad rek commencé wër buy wër wër gu mujj gi mën naa am bu ñëwee ba bu yegg si fa mu taxawoon mu dëpp parce que fa nga taxawoon direct nattale ko yombul kon wër gu mujj gi mën ngaa ñàkk egg fi nga taxawoon fa wër yi matut da ngay dem ba romb ko tuuti noonu romb ko rek nekk ci kanamam sës maanaam wala boog nga xaar xajur aswad jiitu la tuuti kanam noonu nga ñëw ñëw sës noonu waaw lay jiitu tuuti waaw bëgg wax bu la jiitu tuuti ngay commencé wër saa yoo wëree ba tollaat ak moom la am nga benn wër léegi wër gu mujj gi nag da ngay fekk romb ba tollawaat ak moom pour mu ma nekk juróom-ñaari wër yu mat sëg waaye eh, boo boo boo ko jiitoo rek wala nga tolloog moom fi nga taxawoon nga yegg si waat fi si euh, mool gu mujj gi da mën naa xaw a jëfe man nga sens mu nga romb ko wala nga taxaw fa yem fa wala nga ñàkk fa yegg si loolu wóorul kon na ngay fexe aj doj jiitu la tuuti nga wër di tolloog doj bi nga xam ne wóor na la wëri wëri moom mat na yaa ngi comprendre li ma lay wax hmm? dégg su ko defee nag saa yu wëree ba tolloog xajul aswat da nga koy fóon comme noonu ñu la ko waxoon waaye fóon yooyu lu sopp la saa yoo tollee rukkunu yamaan yi nag nga fóon ko moom it waaye moom sa loxo nga koy fóonee doo ko fóonee gémmañ booy kaaba gi dalay faree càmmooy bu fareewul càmmooy wër gi du baax su ko defee nga wër juróom-ñaari wër ñett yi da koy cal ñeent yi nga daal di ko dox loolu nag góor a koy def waaye jigéen di ko def waaye koo xam ni wër kaaba ga wër a xuddum gi war na ko moo koy def waaye waaw ñuñ màkk moom wër gi warul leen kon duñ nekk di calante amaa wër bi nga xam ne moom ngay def ci bisu fukkeel ba bu ñu jàng léegi kooku farata la amul cal hmm? moom moom dox la hmm? wër googu amul cal dégg su soo wëree ba juróom-ñaari wër yi man nag nga dem ci maqaam Ibrahima julli fi ñaari raak foo ko julli si jàkk ji baax na waaye julli ko ci maqaam Ibrahima soo jullee si maqaam Ibrahima pare nga fóonaat xajul aswad pour génn dem dox Safa Marwa fóon gu mujj googu moom it sunna la dégg si sunnaay dox Safa Marwa la bokk nga fóon xajul aswad su ko defee nga génn dem safaa safaa ngay njëkkee bëgg nañ nga yëg ci kaw taxaw ñaan wàcc dem marwa soo njëkkee marwa ñëw safaa la nga jógee marwa ñëw safaa baaxut foofu safaa ngay njëkkee dem kon boo yegsee safaa nag foofu ngay door a commencé compte dégg dem bi wër la dikk bi wër la noonu ngay def ba mat juróom ñaari wër booy dox safaa marwa am na xur bu ñuy wax batnu masil soo fa yeggee da gaaw ba romb ko mu si diggante ñaari petit versé yi na nga gaaw ba romb ko gaaw gi nag doo doo daw bopp waaye doo doo doo doxit da ngay da ngay cal dégg saa yoo demee marwa na nga fa taxaw ñaan yàlla saa yoo ñëwee safar na nga fa taxaw ñaan yàlla ba mu mat juróom-ñaari wër dem wër la dikk wër la kon safar da nga taxaw ñeenti taxawaay marwa nga taxaw fa ñeenti taxawaay misaal mi jëlal dama ko jàppale si wër gën a balaa <laughs> ko ëpp misaal mi jëlal dangaa ñëw safar taxaw fa am nga benn taxawaayu safa nga dem marwa léegi am nga benn wër xam nga taxaw nga marwa am nga benn wër bu nekk am nga fa tax benn taxawaay nga ñëwaat safa am nga ñaari wër safa nga am fa ñaari taxawaay marwa benn nga demaat safa nga demaat marwa kon am nga ñetti wër bu nekk am nga ñaari taxawaay nga ñëwaat safa am ñeenti wër safa am nga fa ñetti taxawaay demaat marwa am juróomi wër bu nekk am nga ñetti taxawaay ñëwaat safa am juróom benn wër safa am nga fa ñeenti taxawaay demaat maroo am juróom-ñaari wër maroo am nga fa ñeenti taxawaay yaa bu nekk da fa taxaw ñeenti taxawaay léegi weeru xaj bi bu amee juróom-ñaari fan mooy weeru tabaski bisab juróom-ñaari woo imaam dana fa def xutba gu am solo di la jàngal li nga war a def ci mbiru aj gi xutba ak juróom-ñaari googu bëgg nañ nga teewlu ko bisab tarwiya bi mooy bisab juróom-ñetteel ba xam nga ni dañ ci préparé ndox pour dem fële mu tuddati arafa ndax bisab juróom-ñeenteel lañ war a taxaw arafa bisab juróom-ñetteel ba nag na nga fexe jullee tusubaar nga xam ne boo ñëw mi naan rek tusubaar jot da nga xaar ma xam ne boo ñëw rek tusubaar jot nga ñëw mi naan julli fa tusubaar taksaan timis gaye nga wàññi waaye doo boole ba suba boo jullee suba nag xaar ba jant bi fenk nga door dem arafa dégg soo demee arafa nag Euh, loolu lépp yaa ngi wax la béyk ko waxee la ko ba ngoon jot bu ngoon jotee imaam dana jiite nit ñi ca julleekaay bi foofu ca Arafa su ko defee nag bu subaa jotee avant ñuy julli na sangu yow soo sangoo ba pare ànd ak imaam nga boole tusubaar ak takkusaan su ngeen bu paree ngeen taxaw taxaw taxaw taxaw bu guddi maanaam ba jant bi so bu jant bi sowee taxawaay boobu nag mooy farata diggante boobu ba bay fajar di jot loo fa taxaw dana dana baax bu jant bi soo diggante boobu fajar jot loo fa taxaw dana baax waaye nag buñ taxawee jant bi soo buñ taxawee foofu buñ julli timis ak gaye imam day départ rek dem Musdalifa yéen mi ngeen ànd ak moom su fekkee da nga ànd ak imam dem Musdalifa bu ngeen demee da ngeen boole diggante timis ak gaye su fekkee da nga am ngànt ba imam raw la yow buy fajar di jot buy kii kon gaye di jor rek fa nga nekk boole fa diggante timis ak gaye yow kenn kese bu ngeen yeggee Musdalifa nag taf euh, tim gaye jotagut sañu leen boole. da ngeen xaar ba gee jot ngeen door a boole timis ak gee su ngeen boolee te gee jotagut danañ baamuwaat timis gi ci luñ sopp waaye gee gi moom dafay war ñu baamuwaat ko ndax bañ ko jullee boobu jotagut dégg kon dañuy xaar ba gee ñu baamuwaat timis gi timis gi dañ koy sopp rek gee gi moom force dañ ko war a baamuwaat ndax bu safax fàddoogu suñu suñu boole su fekkee nag taxaw nga ak imaam Musdalifa waaye yaa njëkk a dem kii imaam moo la njëkk dem yow yaa sàggan rek amul benn ngànt ba imaam jiitu la yow sañoo boole ci yoon yi bu gayee jotee sañoo boole foo nga yegg ba Musdalifa dooroo sañoo boole timis ak gaye bu fekkee ne yow taxawoo ak imaam yow sa bopp nga eh, sa taxawaay bopp nga taxaw soo boobaa moom doo boole sax timis ak gaye doo boole ci Musdalifa doo boole fenn da julli bu nekk ci waxtu dégg nga su ngeen boolee ci Musdalifa ba pare hmm, Musdalifa nag wàcc fa rek mooy war gar wàcc fa. amma wàccee fa sa bagage du war a boo ko bàyyee dara léegu si waaye na nga fa wàcc lu toll ni digg bu nit mën a wàccee bagage yi jële wàcce bu bagage yi loolu mooy waru gar bi loolu boo ko bàyyee da nga rey gàtt jege ko Musdalifa nag bëgg nañ nga fanaan fa fanaan wu du waru gar soo fanaanee ba suba jot nga julli fa suba soo paree nga dem ci masharul haram mm, di ñaan yàlla ba jant bi di waaj fenk su ko defee nga dem Minaan booy dem Minaan nag ah, dana romb mm, xur bu ñuy wax bat mu xasar mooy fi yàlla la kon ñooñu abraham moom la ñu jàng léegi su ko defee boo ko rombee nga gaaw ba romb ko gaaw boobu wax nañu ne sunnaay góor la waaye du sunnaay jigéen soo yeggee minal nag am na benn jamra mooy jamra bu mujj ba na ko sànni juróom-ñaari xeer mooy jamra àq moom lañ leeral léegi xeer wu nekk na mel ni xeer wu mën a sànnee loxo maanaam baaraam dégg nga xeer yu ndaw yu toll noonu nga sànni fa juróom-ñaari xeer woo sànni na nga kabaar jamra bu matul juróom-ñaari xeer baaxul jamra yi da nga ko war a sànni comme noonu ñu ko waxee saa yoo sànnee kabaar su ko defee boo sànnee jëm naa àqaba boobu jëm naa àqaba rek ngay sànni am na ñetti jëm naa benn rek ngay sànni su ko sànnee jëm jamra àqaba pare nga loj sa at yu bu fekkee taxawaloon ko arafa boo ko taxawaloon arafa nag nga loj ko màkk ca marwa waaye gannaaw boo ko génnee yóbbu ko ca xilli ja dégg nga su ko defee nga wattu nag dem màkk wër kaaba ga juróom-ñaari wër comme ni ñu jàngoon wër kaaba ga julli ñaari rakk ci maqam Ibrahima su ko defee ñëwaat minan sax fa ñetti fan fan bu nekk bu jent bi sooyee balaa ngaa julli tisbaar sopp nañ nga laab sànni ñetti jamra yi jamra bu njëkk bi bu digg bi bu ci bu ci mujj ga soo jaxasee jamra yi du baax bu digg bi nga war a njëkk bu njëkk bi nga war a njëkkee teg bi digg ba teg si bu ca muj ga xataa boo amee jamra boo xam ni eh, kii mi dafa manqué sax xeer mi dafa manqué boo ko sànnee foo nga sànniwaat jamra ba si topp juróom-ñaari xeer yu ma sëkk waaye nag moom xeer mi ngay mottali rek comme ni ko waxee noonu soo sànnee jëm yi nag ba ñaari fan yi jeex bu neexee nga tourné ñaari fan yi xam nga mooy lan de bu neexee nga sànni ñetti fan yi mm, euh, soo sànnee nag ñetti fan yi ba mu jeex xamal ne sa aj gi pare na mat na mën ngaa delluwaat màkk wër kaa bëgg a tàggu ko di toroxloog jooy noonu mooy noonu mooy aj umra it nañuy ajee rek lañ koy defee xanaa boo yeggee ba ci dox safaa maroo neel boo doxee safaa maroo ba pare watul umra ga na wattu nag ci aje ak umra yëpp moo gën ci àqi góor amma jigéen moom dafay jëmp rek waaye du wattu wattu dafa xaraam ci jigéen joo xam ne nii mag la jigéen buy jëmp lu toll ni polu baaraam lay dagg ci karaw ga góor nag buy jëmp dafay dagg ba ci cosaanu karaw ga mu jege ko lool dégg nga in uridu ila islam mastantuma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib aleykum wa wa barakatuh